dal ak jaam Cheikh Bara président Macky Sall moo doon addu si mbirum kii di Sonko moom président Macky Sall mu wax que ne nag maanaam bu Sénégal nekkul woon yoonu bu am woon démocratie ba léegi maanaam lijjanti nañ mbirum Ousmane Sonko si jotaay boo xam ne nag amaloon na ko moom ak yéenekaay bii di Express euh, l'Express moom njiitu réew mi Sall du na si mbi yu bari yu soxal euh, réew mi rawatina xew xel yi nga xam ne nag moo am fan yi si Sénégal euh, dox si diggante layoo Ousmane Sonko ak euh, Mame Mbaye Niang lu jëm si fitna gi nga xam ne nag ñu ngi koy teg si Ousmane Sonko moom président Macky Sall mi nga xamal ne nag réewum yoon la ñu nekk waaw tey réew mi ñu nekk nag lenn lenn jiitu politique warut maanaam bañ a tënku si yoon bëgg a jëfandikoo ma mbedd mi mu ne lii xew nii nag amulu benn réewum démocratie waaw bu ko kenn nit rek mënut a téye gàllankoor dem gi ak dikk gi maanaam ba ndakaaru képp kenn mënul dem mënul dëkk ne moom ndax benn nit koo xam ne daal moom dañ ko wóolu rek maanaam si yoon moom Ousmane Sonko lay wax muy wax tamit ne bu lu lu ku jéggi di maanaam di tuumaal nag moom njiitum réew mi di Macky Sall di wax que day jëfandikoo maanaam yoon pour bëgg a sànq kii di Ousmane Sonko ba nga xam ne nag lu dem si élection yi nga xam ne nag moo di ñëw moom Macky Sall nee bu Sénégal nekkul woon réewum démocratie nee na amul sax ma dem te ñëw ay mbiram lijjanti nañu ko bu yàgg moom mi di Ousmane Sonko. kuréelu soxal nag coowal Prodac dox si moom Ousmane Sonko ak benn jëwriñam bu ñaan Mame Mbaye Niang moom président Macky Sall nag maanaam eh, àdduwul si lu ni mel nekk kàddu yi président Macky Sall nag jëmale woon Sonko